dama la gétti woon góor ña cerno borom daru la gétti woon góor ña defuk ndañjaama wallaayi sarangooñi war naa tuuru ma jooya jooy maam cerno borom daru ma jooya jooy ba sama gëdi muuru saaru gi lax sama xol bi wow na assalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu dalal ci seen kër ñu ngi leen di dalal ci suuf su tedd suufu si yërmande suufu su xewal suufu su mucc suufu su kaaraange suufu su faj aajo di daarul mawti turu Serigne Touba fortuwut làmb lu nu ëpp lii ma lim ci aw yiw suufam ndax keroog bi mu bindee ca loxoom bu tedd ba wax ne tuddee na dëkk bii Daarul Mawti moom Serigne Touba dane ndaw yam doon yónni ndax tuuru dëkk bu mel noonu mas koo dégg ñu ne ko déedéet Mbàkke noo ngi a dégg mu ne sàllaw fortuuma Sëñ Tuubaa nag lu muy fàggu mu ñor ko ba fortuwu ko lii ma lim ci aw yiw ak mbaax lu ko raw am na ci suuf si ci barke suuf la soo xam ni seeni boroom jaamu nañ fi yàlla ba suuf si sax yàlla da ko ruus garab yi saxee suuf si sax yàlla da koy bàyyi xel donte moo ko sàkk bindeef yi daagu ci suuf si ba ci ndegment yi borom bi da leen a bàyyi xel ngir màggu barab bi te lépp di coobareem ak kattanam ndax moo jël tawféexam sotti ko ci kaw Cheikhul Khadim ba fépp foo xam ni Serigne Touba wàcc na fa xéwal googu dafay wàcc fu baatam wàcc xéwal ga wàcc fa fu ndigalam wàcc xéwal wàcc te dëkk bi ci ndigalam lañ ko sanc kon xam na mu xel ne ndimbalal yàlla moo nekk ci barab bi ak tawféexam kon nag su ngeen bàyyi seen yitte yépp bàyyi aajo yépp seen jublukaay yépp di Daarul Muhti na ngeen xam ni fii kenn du fi jëm ak njaqare te suñ borom saafaraalu la ko ngir dara jay ñi dëkkee suuf si ak ñi nga xam ni ñoo ci joxe ndigal ñu sanc ko ci seen ndigal kenn du fi indi lenn loo xam ne aajo la te waaj ni nga xam ne noonu lañ war a waaje ci kuy janoog sa boroom di ko diis ajo bu loolu manqué wut aajo ji bu fajuwut da nga xam ni na nga laajee muurut noona waaye boo laajee na nga war a laaje loolu laaj fii ñu jox la ko li war loolu mooy dëkk bi da ko tuddee daarul mu'ti al mu'ti ci tur yàlla yi la bokk mooy tekki aji joxe ji tubaab di wax donateur kat bi Serigne Touba nee na fii mooy aji joxe ji kon lu waay laaj ñëw ba ci dëkkub aji joxe ji te jotoo ca seetaatal saw laajin seetaatal sa bop wala day wax ne dimbu dimb dana tax dimbu weex waya ku xam na ngay laaje bo laaje man nga am tawfiq ja nga xamne mom nga don sakku jafe nak ndax ñaan ñi xam ñaan sax ñemewu ñoo ñaan ndax ñaan day lu jafe-jafe waaye képp koo xam ne laabal nga sa xol laabal sa jëmm jiital yéene ju sell janoog sa boroom ci bis bii nga xam ni bis la boo xam ne bisub njëggal la sëñ daam wax na ko waaye naka jekk le nisfu saabaan day bis boo xam ni guddeem ak bëccëgam dañ ciy far ay bakkaar bis la boo xam ni jubluwaay bii di kaaba gi ci lañ ko amoon muy taxwilul xiblati ci la yàlla soppi jubluwaay yonent bi ne ko dootul Jérusalem waaye léegi sa xar kanam man lay man lay jublu baytullaahil xaraam bis bi ci la Sëriñ Tuuba daje ak borom darul moxti ca Ndar am na sax yeneen borom xam-xam yoo ne cheikhul xaddim sax ci la gane jamono kon bis la boo xam ni lim làmb ci xéewal li mu làmb ci tawféex kenn xamut nu mu toll kon lépp luñ ko ëmbal ci aajo indiwoon ko buñ ko ko imbilee te jaar fii ma wax mën naa faj aajo yi ñi ñépp mën naa dolli seen xéewal mën naa doon garde-fou bi nga xam ne dana dox seen diggante ak lépp lu bàyyi ko ci àll ba te lor tax koo jóg du yegsi ci yéen kon nag ñi nga xam ni dañoo bàyyi ko ci ay dëkk yaakaar dëkk bii rekk tax leen a jóg nañ xam ne dëkk bii yaakaar du fi tase dëkk bii sutura du fi xotti ko du fi xawee ko mukk mukk mukk na ngeen dalal seen xel yi bu baax a baax a baax a baax xam ne yootu bi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg nañ xam ni sëriñ bi daa bëgg ñu jot rek te fii képp ku fi taxaw yóotu la nga yóotu da ko jot ndax sëriñ bee lay tumboomal boppam soo ko jotee tamit dana la gunge ba doo ko yàq dalay wan noo koy sàmmee soo ko munta sàmm mu téye ko ba nga am ci aajo mu jox la ko waaye du nangu mu yàqu solo kon lii nga xam ni moom lañ doon def suñ xel dal na ndax yéen a gën a xamal seen bopp ne ampo dajalewu leen fii li nu fi dajale kenn ku ci nekk ñaari biir la yor biiru boppam bii nga xam ni ñam yi ñu doon waajal moom lañ ko doon waajalal waaye lii nu doon def di njàngum alquran bi xaside yi ak ñi fi doon tudd kalimatul xaq bii di kalimatul shahada nañ xam ne loolu mooy berndeel ruux yi jëmm yi lekk la yittewoo ak naan ak yu sedd ak keppaar yi ak ventilateur yi galage yi ak climatiseur yi waaye ruux yi moom li mu soxla mooy boromam bernde boobu nag moom ngeen amoon ci xasiday Serigne Touba yi ndax Serigne Touba ne samay xasida dafay tarbi ab murit ba yeggale ko ci boromam ci te te du laaj sax muy tëjoo ko dugg xalwatu kon bu nu leen bëggalee ci xasida yooyu day mel ne berndeel nañ seen jëmm yi ak seen ruux yi kon nag dama ne woon sax duma waxtaan sëñ xaas mii laa naroon a jox mu gërëmanteeg yéen ndax moom sëriñ bee ma ko féetale lu yàgg ñu bari ci mbooloo mi miinuñu ko ngir nekk bu mu nekkoon bitim réew ndax daanaka xaw na faa def fukki at ak juróom-ñeent kon xaw na faa yàgg sëriñ bi moom ma ko féetale yàlla def mu nangu loola léegi laa koy wax xaadim jëwriñ xaadim ma ne ko sëñ xaas nii la ko yàlla bindee xam nga sant mbàkke yomb na waaye doon murit moo jafe sant mbàkke yomb na doon murit moo jafe bari na ñu nekk ci yoon wii sant sant wi te ba léegi seenu murit jàpp jàpp naa ne am na am na lu des ndax sëñ Tuubaa niñ ko war a xamee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ah man de bëgg naa ko bëgg naa ko ni ñu war a xamee Sëñ Tuubaa dëgg-dëgg ak ni ñu ko war a jàppee mooy sama maam doyu ci ëpp dëkkam laa dëkk doyu ci xam naa fan mooy mu mujj gi nekkam ci wàllu saayir doyu ci sëriñ bi des koy dund rek ñi dundul sëriñ bi nag buñ gisee kuy dund sëriñ bi day nekk kéemaan ci ñoom ba nuru lu jafe fekk lu yomba yomba la tawféex la rek boo ko sakkoo rek yàlla moo lay dimbali defal la leeru sopp Serigne Touba ci si biir xol nga di ko dund su boobaa ci ngay doog a tudd am murit moom laa doon wax mbokk mi léegi maanaam ku sëñ xaas nag yàlla dimbali na ko mu am murit ndax ni ngeen di dundee kalimatul xaq di ko dundee xasidee sëriñ bi di ko dundee sëriñ bi nu ko raw lay dundee sëriñ bi moom moo tax moom laa naroon a bàyyi mu tënkal ma kàddu yii may wax ñaanal mbooloo mi ginnaaw bi jëwriñ yi na ma dimbali nu rek may nu ay baat xam naa ne sax bu ma jugoon dem ni ko sëriñ xaas di matale muy gën a rafet nii ma koy defee ndax sama rakk la ñu bokk bàyyi waaye mel na ne li ma bokk ak sëriñ xaalib ak sëriñ xaalit dafa mel ne moom mii li ma bokk ak moom ma ko gën a foor sax ngir dégg déggal gi ak fi mu tegu nekk ci li mu war fu mu yendu ndigal ko fa bàyyi fu mu fanaan ndigal ko fa bàyyi loolu nak li tax ma di wax mooy génn gi bari xëy na tur bi lañ gën a xam ci jëmm ci kon noo ngi di sant noo ngi leen di gërëm di leen wax ni ñun amuñu lenn lu dul ngir lan Cheikh Ibrahim xam nañ ne fofu moy buntam rek fi lañ ko mujjé gisé ci walu sayyid si waaye ñoom nee ña nga ca kaw ñom bal ahyaan inda rabbihim yurzaqun te yonent bi ne mo ne buñ leen waxé fu yalla ne joxeñ leen kaw kon ñom ña nga ca kaw yàgg na seen bunt yi ñu jaaré nak man nañ ne ñi ngi ngi ci gi yalla def nak ñu di dem buñu démé lañ def ci ay dopp joxe ko addiya bu ñu noppee ñaan ci seen barke ak seen martaba ak wàccuwaay wi leen yàlla jox yàlla faj aajo jaam ñi dimbali nu suturaal nu aar yëkkati nu yokk nu barkeel suñuy njaboot ak suñuy alal ak suñuy barab te loola sunu borom mën na ko ngir kooku ñu ko bëgg a jaar ci moom ku ku juboo ak moom la ku déggoo ak moom la ndax mooy xalil day day day day yàlla moo tax dem ci ki nga xam ni mooy sunu bunt ci moom di sëriñ daam ahmadou fati mi nga xam ni tawfiix ji nu yàlla defal mooy ni ni ni mu def njabootam yar leen ci njub yar leen ci lislaam yar leen ci dëggu yar leen ci nangoo sonn bi max naa bépp yarin woo xam ni warees na koo yare njaboot ngir bu ëllëgee doo amee gàcce ca ñoom sëriñ daam wàccoo nañ ci wet googu nu dem ba fa kanamam jaajëfal ko ñaan yàlla dolli leeram te taas ñu ci barkeem yéegal ko ci jànnatul firdawsu mook ay wayjuram ak i ak i magam ak i rakkam ñi fi nek yalla baye baye baye baye di leen fi ndax mom rek a fiy des borom bi yalla na yeex waya tok togandi rek am waya tok amut tok amut tok amut togandi rek am motax borom daaru ne boo ameew mu am dom neena na nga farlu gaaw rattu ko ndax dina feral bis dana ñëw mu feral nun ñi ak sëñ dam foogu woon ne dana feral léegi kon ku amu nag mu am doom del rat ndax feral dana ñëw kon nag nu waajal bayti lii nga xam ni moo moo des ci màggal gi bu nu yàlla mayee jant fenk ak jàmm juróom-ñetti waxtu ak genn wàll di huit heures na na fekk ñëpp ci biir kër gi bu ko defee balaa neuf ñu mën a taxaw ci kanamu Cheikh Ibrahima Fati def nañ daan def rek jàmm bu toroxlu wàccee boppam ci kanamu sangam def tawassul ci maqaamaam ak darajaam ak wàccuwaayam ngir yàlla dolli yërmande ci jàmm ñi dolli ko ci kaw suuf si dolli ko ci kaw